salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyuwee ñu daal di dellusi ak yéen ci naafila guddi gi euh, guddik tey gi nag yemoo ak juróom-ñaareelu guddi gi naafila bi juróom benn rakkan la kon dafay daal di nekk ñetti sëlmal rakkan bu ci nekk dangay def fatiha benn yoon daal di def qul yaa kaafiruun juróom-ñaari yoon def qul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon ku ma daal di koy baamu naafila guddik tey gi juróom benn rakkan la ci ñetti sëlmal rakkan bu ci nekk nga jàng fatiha benn yoon jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun juróom-ñaari yoon jàng qul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon ñuy ñaan yàlla buur bi moom mi dara tawul yàlla na ñu yàlla nangu suñu koor yàlla nañu yàlla musal itam ba tey ci li nga xamante ni moo di xiif ak neen ak marok neen